auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani yéene yëkkataay ab yaat yoo xam ne sëriñ Moussa Ka anhu moo koy sëriñ Mahamadul Fadal Mbàkke ndongale Ahmadou Bamba Jonn fas yéene ko yëkkati babarakati Cheikh al banu balla nujuumun bidiw saful weer sëriñ Fàllilu mooy weer wi leen di jox banu balla nujuumun bidiw saful weer sëriñ fàllilu mooy weer wi leen di jox leer alil faadilu falaata fala taxiisu ximaaram bi jawaadin fasaara iisu na ngeen seere ne feeg jàngu leen siin baa sëriñ fàllilu laay def sëriñ tuuba sëriñ fàllilu laajal lu la neex laaj ku cheikh bamba de baayam lu ko neex laaj sëriñ Fallilu yanjal ku neex daaj ku Seex Bamba de baayam dafay haay ngaaj bu lislaam defunuk bal dangay dóor xaañ ndi Mbàkke ki mbusoo bee fi daa laañ falil faadili fadlan falaa yubaaha laxat xajja wala baa wazara tooha yow ziyaara nga ak ziyaara Tuubaa su yonneen ba ne ñokket nga bég su boobaa yow ziyaare nga màkk ziyaara tuubaa su yonneen ba ne ñokket nga bég su boobaa ba ngay xaj ña fa teewoon waroon nañoo raam te jébbal la kurus yañ yoroon di saw jaam di labbayka te naa marxaban wa sëhlaa ne waa makkata daanañ la nuy si hadiyatuka mimman la waaru fa tuuba lahumu baxdama jaaru fadail ya sëriñ faadiloy ramow jaam xamul cam ko làmboo ci yoonul islaam caxar baax ya fi cheikh bamba daa xarey baax la cheikh faadilo mbàkkey xaraate ay baax sa xam-xam bi nga làmboo xajul ci ay saar ku déggoon li ma wax xam ne yaa muxtaar fu yoodaatuka faddal li laanu ayaa baxru xulumin li daanu xanaa yaa wurus mbaa di keetu yaa ku déggoon li wax xam ni mbir yi lay xóot wayof toyyu ti xandak di baara sew diis sa ndey togg sa baay fat ma ne fu laasiis lewet dommote handak ndi doomi jàmbaar nosar ruuyita wommat ndeyaadi njaccaar sëneeg maam ya shérif lañ gënee lay maam sabaay jant sa nday wer marax ba yaay daam ca meenam xasan ak moom xuseynu ngay meet selog lul manu maalim li war ci say xeet mbusoo bee la ko nàmpal ma laa kuuj xamoo rax bu la ñaawal xamoo ko ñuy tooñ xajaayib yi nga bokk ak sëriñ tuuba balaa feeñ dañu fiy jóg ba tàbbi na bur yokk sunu fan ba bun jógee raam tawam mat ñi fi daa xeeñ ci yoonu lislaam na bur yokk sunu fan ba buñ jógee raam tawam mat fi daa xeeñ ci yoonu lislaam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim barkeb cheikhul